dañ fi ñëwaat ak délégation bu takku ne leen ci nii wala ci naa dinañ fi dugg ndaxte mun mënuñu nangu président Sonko atteeguñ ko déglu guñ ko condamné guñ ko daana guñ ko ñu naan président Sonko mun mënul recevoir ay visite ñaareel bi ñun waa FRAPP ay africain lañu ñun waa FRAPP ay sénégalais lañu lan moo war a tax ñu ne doomu Sénégal yii mën nañ dugg seeti Ousmane Sonko ba pare ñu ne ñun membre FRAPP mënuñu seeti Ousmane Sonko ñaar yooyu la ñu ne duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ñoo lànk ñoo bañ bi ñu ñëwaatee nag bàyyi nañ ñu ñu dugg gis nañ président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko bu ànd ak ful ak fayda. président Ousmane Sonko bu ànd ak fit président Ousmane Sonko boo xam ne dafa takku ba dëgër këng dafa ngemb ba dëgër këng fas yéene ànd ak askanu Sénégal ngir xeex nootel nootel bi daanu woon ci Karim Wade nootel bi daanu ci Khalifa Sall nootel bi daanu ci Adama Gaye nootel bi daanu ci Boubacar Seye nootel bu daanu ci Assane Diouf nootel bu daanu ci Guy Marius Sagna nootel bi daanu ci Boubacar Seye ak ñoom seen ñu jàpp ne nag dafa doy dafa doy ñuy seetaan président Macky sàll di def lu ko neex ba tey jii nii si yóbboo ñu woowee ko Macky toje toj tëj ndaxte ñi mu àndal ñett yi lañ fi nekkee toje toj tëj toje suñu alal toj suñu ay kër toj suñu ay kër ba pare ku yuuxu nga tëj ko loolu nag la ñu wax ne dafa doy mbiru Karim Wade rëcc nañu Khalifa Sall rëcc nañu waaye bu ñu toog seetaan ba président Macky Sall tànn ki nga xam ne moom la dana bëreel wala moom la sondage yi ne d'accord moom mooy nekk cinquième président dama ne firaawu na dafa géntoon ñu nekk ko sa gént lu muy tekki mooy ah am na am na xale bu góor buy juddu boo xam ne dina la daaneel firaaw na ne nañu rey xale yu góor yëpp président Macky Sall moom itam dafa gént waaye géntam mu ngi tudd sondage sondage yi xamal ko ne cinquième président du Sénégal mu ngi tudd Ousmane Sonko moo tax mu ne moom itam bépp doom bu góor da rey rey na Karim Wade rey na Khalifa Sall jamono ji nag mu ne ah sondage yi ne ko ah cinquième président Ousmane Sonko la tudd mu ne foog ma faat ko foog ma faat ko politiquement loolu mooy li nga xam ne mooy raam jamono ji te buñ ko seetaanee président Macky Sall dina faagaagal Ousmane Sonko.